xalif général des Tidianes di Serigne Mbaye Mansour ginnaaw bi mu dalalee jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu mbay mi ci biir réew mi dikk lu yaatu ci nawet bi ak taw bi nga xamante ne yéex naa wàcc ci réew mi moom sax di xalif général des Tidianes mi ngi sàkku nag ci askan bi ñoom ñëpp nekk benn fóot xol yi te Serigne seek mag ñi ñëpp amul ay ñaan ndox ndox mi mën a wàcc ci réew mi saawaan baawaan. tey jéem a jàppalante ak jàppalante jàpp sa bopp waaye yal nañu yàlla dogaleen boppam soppil ñu xol yi soppil ñu xalaat yi boole ñu ànd nekk benn njëriñ njëriñu réew mi réew mi ñun ñëpp ko te lu yàlla bëggee defar taw mënu ko defar bu yàlla bëggee mu defar taw mënu ko defar yàlla mën na xaar ba octobre mu taw fi taw bu defar lépp moom ñëpp kenn yërëmul xaleel jëwriñ ji nga xamante ne moom mooy yor wàllu mbay mi rafetlu lool kàddu yi nga xamante ne xalif général des Tidiane yëkkati na ko ak dikk bi nga xamante ne dikk na ko fii ci Tivaouane ngir sàkku fi ñaan dañ ñëwoon fii tey Tivaouane ziare euh, xalif général des Tidiane ñëw ñaan euh, xam nga ne xalif fii <laughs> dëkku ñaan la ñëpp xam nañu Tivaouane li mu représenté ci diine bi ci Sénégal li mu représenté ci développement même agriculture ci Sénégal xam nga fii mbay euh, dafa am doole fii comme ni mu amee doole Sénégal yëpp donc euh, dañ fi ñëw pour xale bi mu ñaanal njiitu mi mu ñaanal béykat yi mu ñaanal Sénégal ñu am nawet bu baax te barkeel. ginnaaw bi mu jógee Touba dikkoon fii ci Tivaouane dina wéyal tukkib nemmeekoom bi jëmale ko ci kilifa yi diine yi ngir ñu ñaan bu baax jàmm ci réew mi ak nawet bu mucc ayib.